Madieye Mbodj maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Madieye Mbodj nga nekk coordinateur de la coalition sénégalaise pour la cause palestinienne euh, lan moo leen poussé ba ngeen mettre en place euh, collectif bi coalition bi exactement. ñun de li ñuy li ñuy ndaxarlu dafa naa ne képp kuy aadama rek tax da ko war a ndaxarlu jël leen askan di ko boobu ay liir ay mag. ay jigéen yëpp nga faagaagal leen taxaleen seen suuf di leen yéen du ngeen tekki dara ay bàyyi ma ngeen loolu la ñuy xeex yàgg nañ koo xeex yi Sénégal tey jii ñu jàpp ne président la république bi Bassirou Diomaye Faye euh, jël na position bu leer ba yóbbu ko fay ci OCI yi nga xam ne ñu ngi doon dajee Gambie ci weeru weeru mois de mai euh, ba nga xamante ne jibal nañ sa kàddu Sénégal wane ne dañoo ñu ñëpp dañoo war a naqaroo li nga xam ne moo xew Palestine dañoo war a dal ci kaw ki nga xamante ne mooy ak gouvernement am ndaxte li ñu li ñu euh, euh, euh, teg li nga xamante ne mooy waa Palestine dafa jaaduwul te Sénégal si mos a am si xawaay bu leer jamonoy Senghor jamonoy Abdou Diouf Ablaye Wade Macky dañ cee mos taxaw ba am loo xamante ne ànd bi doomu la ko defal ci ànd bi Sénégal doomu mooy réew mi nga xamante ne mille neuf cent soixante quinze ba léegi moom doomu mooy jiiti yenn kuréel boo xamante ne organisation des Nations Unies taxawal ko tudde kuréel gi nga xamante ne mooy saytu ak ak yelleefu doomi euh, Palestine kon boog loolu ñu ko war a tamit delloo ñu ko wane ne loolu ñu ñu ko sëkk ba fu ñu jéem a xonqale bëtu waa Palestine ñoom bu ñu gëstoo gis seen bopp loolu moo tax ñun na amoon na sax ñu Sénégal ci at yi ñu génn depuis deux mille maanaam depuis juróom-ñetti at yi ñu génn euh, jàppale ni demoon na ba tàmbali OF te Israël bu ñu leen jaay ay ngànnaay ah du ñu xamante ne yaakaar nañ leen. danañu mën a euh, taxaw seen kaaraange yi loolu lépp jéem am influence suñu réew yi ba nga xamante ne sax Union africaine demoon dañ bay jéem a jox li ñuy tuddee siège observateur ci sa kuréelu conférence des chefs d'État africaine loolu nag dañ jàpp ne yi nga xamante ne président Diomaye Faye fal fal fal nañ ko ba mu yëkkatiwaat kàddu Sénégal yëpp ko aussi waa aussi d'accord si tey jii ñun ñëpp askan wi ñu ñoo war a jàpp ci xeex boobu wane leen ñun tam ñu ngi ànd ak Palestine bu ñu dong benn yoon ñu ne ñuy salfaaje seen ak ak seen yelef muy muy muy muy muy muy muy muy muy muy ëllëg loo xamante ne jaaduwul te benn doomu aadama du ko dox loolu moo tax daal. Mm. Euh, ñu ñu gën a tax taxawaat. kuréel yi bari dañoo nekk ci biir coalition bi. Mm. Euh, bu mën leen lim ñoom ñëpp. wante incha allah euh, su ma ci àllal ba ji danañu def benn conférence de presse invité ji ñëpp. presse beeg ñi nga xamante ne ni ngeen waree seen daxar li xew euh, euh, euh, Palestine seen seen seen seen seen ñaññi bi nga ñi ne ñu koy ñaññil doxalinu Netanyahu ak ñi mu àndal ak ñi nga xam ne ñoo koy jàppale bitim réew yu mel ne États-Unis ak yeneen réew loolu lépp incha allah suba daañu ko leeral bu baax a baax oh waa Sénégal xam ne tamit war des gannaaw ci jàppale bi ñuy jàppale. Euh, askanu hmm. ngeen interpellé njiitu réewu Sénégal Bassirou Diomaye fay ci situation bi am ci bande de Gaza euh, ngeen di wax ni euh, sax na dàq nu mu gën a gaawee ambassadeur bi nekk fii Sénégal. dama ne Israël waruñu ëpp ful la waruñu ëpp juróom benn résolution benn dogal boo xamante ne moom Sénégal ak yeneen ñetti réew ñuy wax Malaisie. Nouvelle-Zélande ak Venezuela ñoom ñoo ko gàddu woon yóbbu ko conseil de sécurité des nations unies ba conseil de sécurité woote ko moo ne ne dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy euh, gañ li nga xamante ne euh, Israël mi koy def Palestine maanaam colonisation jël suufu jàmbur ne yaa ko ba pare di leen rey di saagal gel saagal gel bépp ak ak bañ ko defee ñun Sénégal lan la Israël def ci Dakar dafa am wala am na solo mais kon nii ñun ñii tey mi ngi di di di di di salfaañee di dëggaate ak doomu Palestine ñun dañ waa Israël seen ambassadeur bi nekk Dakar jël leen ko ngeen yóbbu ak réew moo xamante ne fonkul doomu aadama fonkul ak loolu moo tax. jàpp ne loolu tamit bokk na ci xeex bi pour nga xamee ne ñoom lañ gis seen bopp te loolu du du du du du du loo xamante ne bu leen la ci Sénégal ay fàttaliku ne mille neuf cent soixante-treize mhm. amoon na xeex boo xamante ne Israël euh, daloon na ci kaw réew arab yi mais jamono boobu tamit lu mel nii amoon na Sénégal bokk na ci réew yi nga xamante ne dañoo takkal seen ay jokkalante seen ay jiflante diggante seen diggante ak ba mille neuf cent quatre douze kon loolu la ñu jàpp ne tey jii kat teel teel waal gën a aay ndax tey li ñuy raafal aw xeex aw xeet aw xeet lu te da koy da koy da raafal da ngay jëpp muy liir yeeg jigéen yeeg mag ñeeg màggat yeeg foo gisee ak rey daal leen daa jàpp ko dañuy ay bàyyi ma lañ bàyyi ba sax am na lu ñu ko war a wegee ak si balaa doomu aadama Mm. Euh, tey jii euh, Madieye Mbodj pour yow lan moo mën a tax Israël dellu gannaaw. li ma tax Israël dellu gannaaw ci mooy nga xamante ne dañ ci am cër ñu dox ko ba mat sëkk mooy nguur yi maanaam état yi mooy askan yi maanaam ñun ñii suñu kuréel yi nga xamante ne ay association yi yëngatu ci ak yelleefu doomu aadama yi ay parti politique ay syndicat ay ay ay kuréelu euh, yëngatu ji diine ñooñu ñëpp dañuy jàpp ne war nañoo seet naka la ñu gën a dëgëralee ñuy naññee Israël ba mu xam ne lii muy def kenn ànd kenn ànd benn benn benn anam la ci bi ñuy fexe bi mooy gouvernement yi nekk ci àdduna bi ñoom tamit woon Israël ne lii muy def duñ ko dogal duñ ko seetaan mu tàmbale ko ci ñun ñii suñu gouvernement li ko Diomaye Bassirou Diomaye Faye defee jamono yi ñun dañuy koy rafetlu bu baax woon Israël bi li nga def jaaduwul bu ci ànd wante ñu def ko tamit ci Afrique bi yëpp réew bu mel ni Afrique du Sud nga xam ne ñoom dañoo xam bu baax lañ ko dund ba bu yàggul rek lañu am seen seen indépendance. 1974 1994 la ñu commencé di di dund di dundaat di doyiwaat li ko jiitu yëpp lan lañ fa nekkoon colonisation ak apartheid maanaam moom seen suuf ba pare ñu leen di leen bund xataal ah ci ah, ko ci doomu aadama donc affaire la ko dafa jël matukaayam dem seet ñi nga xamante ñooy kuréelu ate yoon ci àdduna bi ñu mel ne cour internationale justice boole fa Israël nit ñi dañuy def génocide tey waruñu waruñu koo seetaan kon dañ ne Sénégal war na euh, dëgëral jéego yooyu fexe ba waa Union africaine yëpp jàppale avec bi ci initiative yooyu taxe tamit ba loolu yaatal ko ba mu yegg ci kuréelu mbootaayu ndax mbootaayu xeet yi Nations Unies fexe bay Nations Unies woon bu baax parce que Nations ba léegi ñu ngi jël ay résolution yu jeex pour pour dakkal vraiment conflit maanaam euh, euh, ñàkk déggoo bi am diggante Israël ak ak Palestine bi Israël ak ak réewu arab yi tey jii nag dafa jot Nations Unies googu am fu laak fayda ba li nga xamante ne jàpp na ko ci ay résolution yu jeex ba seet dara lay fexe ba ñu appliqué am ñaari euh, ñaari réew Israël am réew Palestine am réew ku nekk man faa nekk jàmm ak salaam doxal ko ci loo xam ne yaa bu mën a bopp loo xamante ne jëriñ sa askan loolu moo mën a indi jàmm gox boobu loolu moo mën a indi jàmm tamit ci àddina bi yëpp Mmh. est-ce que am ngeen plan d'action lan ngeen fas yéene def pour continuer seen euh, soutien au peuple palestinien. waaw plan d'action bi moom daawul xeex baa ngi fi duñ duñ jàpp nañu ko dañu te lépp dana am jamono yoo xamante ne dina gën a euh, tar euh, am jamono yu mu gën mu gën a wàññeeku te ñun loolu dañoo jàpp ne euh, suñu warugar la en tant que Sénégal. dañoo war a dugal suñu loxo ba sëkk xeexu askanu Palestine def ay marche maanaam dox ay doxo jaxtu wone ne am na kër bu yàggul rek def na ci daan marché bu rek bu rëy bu mel noonu wane ne li xew Gaza ak Palestine yépp pour ñu ci àndal euh, ay marche euh, fan yii bu subaa incha allah dañuy de presse yéegee mbooloo mi yéegee askan wi ñun def jamono yi am na benn. dina ci benn euh, benn activité bu ñuy organisé ci dimanche bi di ñëw wala dimanche yu topp lu ñuy wax randonnée pédestre maanaam ndox boo xamante ne dafa ànd ak tàggat yaram wante surtout jéem ci fësal tamit li nga xamante ne mooy ŋàññi la xew Gaza ŋàññi la xew Palestine loolu tamit bu ci woo askan wi yëpp rawatina ndaw ñi étudiants yi élèves yi askan wi yëpp kon a fësal naqar ci li xew Gaza li xew Palestine fësal tamit seen seen ñàkk ànd ñu doxali doxalinu euh, Netanyahu doxalinu euh, États-Unis ak doxalinu réew yi nga xam ne tey jii ñu jàppale Israël ci ñaawteef yi ñuy def foofu kon loolu bokk na ci plan bi subaa incha ci conférence de presse bi danañu gën a euh, yokk ñi nga xamante ne na mën nañ ko def jamono yi leetar bi ñu yónnee président Bassirou Diomaye Faye jamono yi bokk na tamit li nga xamante ne dafay fasal suñu taxawaay bëgg suñu suñu ay kilifa yu réew motal bu baax a baax li li ñu xaar ci ñoom li ñu doon li nga xamante ne moom la Sénégal mos a tekki ci àddina ndax dama jàpp ne Sénégal nekk même réew moo xam ne mille neuf cent soixante quinze ba léegi maanaam léegi boo juróom fukki at moom dong nekk réew mi nekk ci Afrique ci àddina bi kuréel bi Nations Unies taxawal tudde ko kuréel bi saytu ak ak yeneen waa Palestine mille neuf cent soixante-quinze ba léegi Sénégal kese ko ba ji doon ba la ci ak war a am cëru bot bu kenn amul bu ko defee bu ñu yi def ci askan yi ak ci réew yëpp def naa la xam ne kon kii kenn du que jàmm ba naa am foofu ah ñëpp nag mën a dund ak jàmm ci ci am yëpp incha allah Mmh. Est-ce que aussi laaj bi ngeen di laaj pour Sénégal dakkal ay relation euh, diplomatique am ak euh, Israël ëppul aussi ëppul ndaxte booy xool ñoom njombe njombe bi nga xam ne Israël mi koy def euh, Palestine dama jàpp ne lépp loo mën a yëkkatee ak njombe moomu dakkal ko lu jaadu la njombe rawul nga jël ay ay ay ay liir leen taal ba ñu ba ñu dem ba nekk dóom day jël ay ay ay ay l'hôpital ay jàkka ay église ay l'école ah foo xamee si dañ dañ lay ay ay làqu ñu leen di bombardé lan moo gën a ñaaw loolu kon yaakaar naa képp koo xamante ne loolu mënoo ci ànd boo dee doomu aadama kese rek war ngaa wut nag pexe loolu dakk kon boog tey jii bu ñuy wax ne dañu dañu dañu dañu dañu dakkal diggante Sénégal ak euh, ak ak euh, Israël ci wàllu diplomatie dafa daane loolu dafa méngoo tey ak li nga xamante ne ñaaw téef yooyu àgg na fa te bay fàttali ne loolu amoon na fi duggule mille neuf cent cent ba mille neuf cent quatre-vingt-douze loolu Sénégal dafa ajoon ay ay ay ay jokkalanteem ci wàllu diplomatie diggante ak Israël kon tey jii dëkk war nañu defaat lu mel noonu pour war leen ne dëgg-dëgg àddina bi bu ñu ànd ci loolu seen doxalin te ku ci nekk da nga wut pexe nag pour loolu pour loolu nag bu faaw. Mm-hmm. Madieye Mbodj euh, ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci tontu bi nga tontu suñuy laaj. maa ngi leen di gërëm di leen di leen di nuyu ñëpp ñu doon déglu di leen di leen gërëm tamit ci déglu bi ah li ñu naan képp koo xamante ne mën nga teew ñu conférence de presse bi ñuy def euh, suba jàmm ci siège yu Amnesty International bi ba teew fa comme ça ñu gën a waxtaan ci mbir mi nga xamante ne. war naa soxal askanu Sénégal yëpp ak ak askanu àddina bi yëpp jërëjëf. merci beaucoup Magaye Madiaye Mbodj nekk coordonnateur bu coalition sénégalaise pour la cause palestinienne jërëjëf.